ku la sampu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Mati Leye xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro di ci rendre hommage Serigne Assane Salam Serigne Abdoul Khabir Massamba Mbacké Serigne Saliou Touré Mame Bou Mohamed Kounta Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Serigne Cheikh Mbacké Modou Fat Khari Serigne Bassirou Mbacké Mor Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng Cheikh Mouhidine Samba Diallo magistrat Serigne Ahmadou Ba président Iba Kole Bao Serigne Amar Birane Thiam Bara Amar Djemoul Alhaji Alé Ndiaye Alhaji Dame Diop Mansour Alhaji Ndiol Diané Alhaji Serigne Soxna Mame Faty Mbacké Fall soxna Ndeye Guèye Adja Ndeye Fatou Seck soxna Bousso Ngom Adja Mame Fama Diop soxna Momi Dali Guèye day soxna Mbacke Moustapha Massamba soxna Endo Mbaye ak yeneen i kilifa bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacke samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6 ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen sëriñ Murtala sëriñ Bamba yow jàllale la baayam loo xam ne kenn nag sëriñ bi ak soldaar mi Si la ak seen diini ndax danoo bàyyi sunuy maam bàyyi sunuy askan sëñ Bamba def lu kenn deful ñu jox ko sunu bopp bu ngeen ñu wooyee ñu bàyyi sunuy sant baay di wuyoo Mbàkke bu ngeen toogee ko ñu jóg suuf bu ngeen nu dóoree du nu fay bu ngeen nu yónnee ñu dem loolu nag gaa ci internet bi defe ni loolu ay wax mën na koo dindi waaye ñun ñi ñuy waxal ñoo moom suñuy neexukaay te yéen lañ ci def yéenay seen suñuy sang ñooy seen i jaam xanaa nag nit bu fekkente ni ne yàlla yàllaa ko bind te te kenn ku ne ne jëmm ma ko gënal boppam te moom nangoo naa doon jaam ne ko yowee sama sang moo yow laa lan moo ciy sa yoon. looloo jaaxal réew. loolu da ngay dem boo demee port. ku ne dina yenu ba mu des na Mbàkke na Mbàkke amul boor naam lu ne am na ba mu na Mbàkke jeex na ñoom ñi ñëpp nag nee nañ li la li la li li leen fi tax a teew ak di yëkkati seen alal di ko fi joxe nee na Mbàkke yow yaa ko ji ci ñoom xeebaloo leen seen dara lépp lu nu xewle ak lépp lu nu woote da ngay ñëw ànd ñoom ah, ah, ma la ministre noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm yow danga nga am beneen garaat boo xam ni moo ëpp doole lépp mooy da ngay ab murit keroog bii nu lay nomee da fanaan Touba xëy suba rajo yi tàkk ñu ne madame Fatou Diané ministre de la femme kon yow sa lépp da na na nga leen loolu da nga koo a yokk soxna Diop nii nag boo ko jàppee suy mën ngeen ko jàpp génn kër gi yëpp lépp jar jarbaat am na jom am na ngor on a fi matuwaay sëriñ yooyu sëriñ bi nee bàyyi moo du muy da ko war a yéene. waaye day yëkkati ay kàddu yu gàtt ci Cheikh Makhtar Sylla mii nee sëriñ Makhtar Sylla yow nit ku baax nga. nee ku bëgg baax nga. ku yaru ku xam teraanga. amuk taalube ku bëgg sëriñ bi te wóolu ko sëriñ bi nee na lépp loo xam ne ñoom dañ cee nekk buñ gis la ci seen wet nga ànd ko in boole ko ak sa teewaay te nee na moom dafay faral di wax ni li des ci àddina fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna amatul li am nee na li am. am fusahum wa am waaluhum boo nekkee ci dara say mbokk teew. indi seen jëm indi seen i jëm mooy an fusahum wa am waaluhum boole koog seen i teraanga nee na loolu moo des ci àdduna nee na bu ñu ñëwee waxante lu baax lii génnee ci suñuy diggante bu génnee ci seen i diggante dara desatu kon si la bi nee moo ngi lay sant. Serigne Mouhamed Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba Serigne bi nee mi ngi lay sant bu baax di la bëggee na gis na sa diggante ak Serigne bi nee na jamono bii nag am safari ngeen di ànd lu jafe la. nee na boo dégloo da nga dégg ruubekat yoo xam ni. dan lay tàqaleeg sab xarit te ñoo nga seeni xarit kon sëñ jiili sëriñ bi nee na jërëjëf nee na mi ngi delluwaat di sant rek sëriñ Ahmadou mi nga xam ni sëriñ Ahma moom sëriñ Mourtada nga xam ni baayam la xaritam la di soppeem di ku yàlla baaxal nee na lu mu nekk rek ak lu mu mën a doon rek. bu gestoo gis sëñ Axma ci wetam nee na communicateur traditionnel yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo ak cant di leen gërëm di leen wax ni sëriñ bi nee na mi ngi leen di wax ni yéen ay xaritam ngeen nee na bis bii booba ba léegi moom ak yéen ñoo ko bokk ànd ko nee na tey jii moo ci des ak suba nee ngeen fexe li weesu ni mu rafete ñu góorgóorlu ba bu subaa mu mel noonu ci yar ak teggin correct xam fi ngay tàmbalee xam fi ngay yem sëriñ bi nee na bu nee ni ay xaritam ngeen ba pare nee leneen mënatu caa tege Cheikh Anta nee na Adja Fat Diané dafa wax ni communicateur traditionnel yi fi nekk li muy dajeeg ñoom dafa bari te waxtu wu nekk da leen a war a teral muy sénépeur yi di géwël yi di communicateur yi ndax ñoom ñëpp dañ ay xaritam te Serigne Bassirou mii magam la te baat bi mu wax léegi tax na mu war leen a teral nee na teraanga ji nag da koy teg ci loxol Serigne Bassirou mu xool kan la koy teg ci loxol communicateurs yi ñu mën leen koo séddale nee na may na leen téeméeri junni nee na li tax mu def ko yéen nee na mënoo leen koo ñàkk moom mënu leen a ñàkk ndax lan yéen lu baax rek ngeen di wax te ku la deful lu baax kenn du ko wax nee na li tax Fallou Galass Lô mi dégloo ñu deg fu mu dugg rek nit ñi yuuxu dafa am njariñ njariñul saayir ak njariñu baatin nit ku baax la ku nawloo ñëpp la